barkeb Cheikh Abdou Lahad mbokki jullit yi fi teew yëpp mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi sëriñ Abdul Ahad moom Cheikh Sohaib bi mu fi jóge léegi ci jataay bi te nekk kilifa jataay bi ci wet yëpp di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér di ñaanal itam mboolem jëwrin yi suñ tubaay yi nekk ci toolam bi di ci jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Basir ñaan mbokki taalibe bi yépp ñu gën a yokk seenu ñaan ci moom jëmale ko ci moom mu yàgg fi lool te ànd ko wér ba li mu yéene liggéeyal Serigne Touba lépp mu defe ko ni mu ko bëggee ñaan ko ñaan googu nga xam ne moom la ko soppeem bii toog ñaanaloon te di ko ko dëkk di ñaanal muy Serigne Saliou xasida waxoon ko ne ko yàlla liggéey sëriñ Touba bi ñongeen ci yow muy loo xam ne lu réyoon ci sëriñ bi la ba kawe ci moom ñaan googu itam ñu ngi koy feddali bu baax di ko jaarale ci ndigalul sëriñ Basiiru Mbàkke bi nga xam ne mën naa ne kàddu yi ñu yëkkati sax daanaka moom moo ko waroon a yëkkati moom Serigne Saliou waaye ñu jox ma ndigalul kàddu yi ñu fi yëkkati rek naa yëkkati kàddu yi donte matewu ma ko itam ñuy sant ak a gërëm ak a ñaanal jëwri nii liggéey bi nga xam ne buñ ko defee comme ni ko suñ bas waxee woon ba mu àgg ñun ñëpp dañ koy takk teg ko ci loxoom bu tegal ñu ko ci loxol Serigne Touba muy Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Souhaïbou di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi lool te mu ànd ko wér ba lim yéene ci ndaw ñi ak mag ñi ñëpp li yéene ko ci tool Serigne Touba bi lépp suñ borom may ko kattan gu mu ko defee ba def ci sax loo xam ne fooguñu woon ne war na faa mën a àgg ci daraja yi Serigne Touba mi nga xam ne du jeexal dara daanaka mën nañ ne suñu kàddu ci moom lañ koy njëkkee muy ay ay cantam ak yi ngërëmam yoo xam ne dafa bàyyi ko ci jëmmam ju tedd joojee ñëw ci suñ jataay bii ci mboolem ku fi teew ak ku mën a doon wax na ne kenn ku nekk ci yéen wax na si ñoom siñ sëriñ Basiiru Mbàkke mee ne ko kenn ku nekk ci ñoom cant ak ñaan nga yàlloo ci yow ci suñ tubaa nee na mi ngi mi mi ngi bàyyi suñ tubaa dox digganteem ak yow defal la la nga bëgg ci sa ci suñ tubaa ci ñi teew ci jataay bi ñëpp ak ñi amoon yéene teew ci ñëpp ak ñi nga xam ne itam ñooy jëwriñ ni jataay bi nga xam ne ñoo ñooy ñooy saytu liggéey bi ba mel ni mu mel ak cantam ci mbooloo mi des koy fedd li di ko fedd li di ko fedd liwaat waaye mos see jóg ci yitte ak yéene ju rëy ju sell ji nga xam ne ñu koy yëkkati di ko jëmee ci Sëñ Tuubaa waaye di ko jaarale la ci jëmmam jooju nee na mi ngi fab lépp di ko seereel Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa it nee na gis na lépp xam na lépp te mën na lépp kon mboolem koo xam ne yaa ngi ci liggéey bi wala nga doon jàpp ci liggéey bi ak noo ci mën a jàppe wala wala ku fi teew ak noo fi teewee rek nee na mi ngi ñaan Sëñ Tuubaa fekk la fa nga nekk faj sa aaju saa yël bati kon cantuk sëñ am sutu moom kenn bu nekk wax soxla ak wax adduna li nga weesu ci ginnaaw bu fekkee ne li nga wax nga doon wax saafara di liggéey bii nga xam ne moom la moo sëriñ bi daanaka mënees na tàmbalee wax ji foofu dafa mel ne doomu aadama suñu borom da ko bind ci ñett wala boog da ko mooñaale ak ñett muy fàtte doye di ak sàggan moo waral ñu koy fàttali fuñ toll li ñu wax doye di ak fàtte gi mooy tax bés bu set booy xool ci xoolukaay yi sax facebook yi ak yooyu boo amee loo bëgg ñu gaaw xool ko dañ cey bind urgence ngir nit ñi mën a dem xooli loolu lu doon mooy nit li teew ci ay bëtam rek la xam moom la yëg moom lay wut loolay waral bis bu set suñ boroom wan ñu boppam waaye dañ ko yëg duñ bàyyi xelit ne moom ñun ñun lay waxal ku duggoon ci mbirum Ibrahima yonente yàlla Ibrahima ba muy génn adduna ak na ko ko suñ borom misaale ca ba mu koy jël ne ko ndax mënu ma ko woon a teel a wax mu ne ko wax naa la ko ay yoon yoon nag ma déggul loola day dikkaat ci ñun bis bu set xam nañ ne misaal bi ma la ci jox am na ko faatu bu yàgg ñun ñëpp moo ko tuddoon aw turam ñëpp ne yàlla ko yàlla yërëm ñun ñi ñëpp dañ naan yàlla ko yàlla yërëm bu ma tuddoon tur bi rek ñu ne yàlla ko yàlla yërëm ndax ku ñu ku ñëpp di xamandoo lay doon nga xam ne ñun ñëpp d'accord nañ ci ne nekkul ci ëdduna faatu li lay xamal aadama lu lu lu bees rek la xam. bu ne woon tëll foofu kooku noonu bu ne woon jekki-jekki ne tëll fii dañ bëgg a wax ñépp koy may nopp kenn du yëngu bu amee koo xam ne da koo séen mu am lu muy wax bu ko ne yow mi de li ngay wax nii am na ko ma fa bàyyee moo ko doon wax waaye maa ngi dégg ñu dugal ko ko tip mu naan ko boo ko defati naa boo koy bàyyi kenn du ko na kooku nu muy solo buñ ko ko waxee ne ko am na ku doon solo nii nga doon solo moom it daa mel ne lu mel ni lii nga solo la sol waaye dégg naa ñu naan ko tip mu naan duutuma ko solati yaakaar naa yow kenn du la wax ne sumb mu ne moomu day loolu de bis set moom lañu yàlla indi ay aaya ci alxuraan ñu di ko jàng di ko tëfle ci suñu ci suñu kanam waaye ji ñoo xam ne mu doon ku ne xam ne ne yow ma yow ma yi ci alxuraan yépp loolu lay misal waaye nag ñun essence moo ñu gën a ñor ci lu passé kon xasida gii am na kuréel bu doon jàng lekk génn xasida li siñ bas doon wax rek mën na cee feeñ mën na dugg ci biir li ñuy war waxtaane muy ñaari si xasida yooyu genn gi laa dégg ñu jàng muy ala inni usni ala xayri munhimi wala astaki lil xalqi min faqdi anhum fokk sëñ bi doon waxe ak ci ci ci condition yam ko doon waxe ak boo déglu way wi ak ni mu ko tege ak leen ci nekk baat bu ne fa mu ko teg ak na mu ko waxe ak lam ca war a jox yonente bi sallallahu alayhi wa lam ko ca jox ak lam ca war a jox yàlla bor boromam lam ko ca jox mu jox mu doy ko sëkk ak lam leen seereel ci boppam ca biir way ca biir waya ba noppi booba maanaam bu doon bu doon bu doon nitu kese dañ naan nekkul ci sagoom nekkul ci sagoom dafa dañ ko yóbbu fu xat fu tàng fu suufe te soof fa lañ fa la doon waxe ala innani usni ala xayri munimi wala astaki lil xalqi min faqad anhum te wéetaayam boobee kenn fekk ko fa woon ni ko suñu seel yu doon waxee léegi mooy mooy kenn fekk ko fa woon foofu kenn nekku fa koo xam ne danaa ko dama ne mu naan xaar kenn nekku fa woon wéetaayam boobee nag moo waral suñu wéttaliku gii nit ñi tuur ndax da nga yóbbu ndox ñu ne ko déedéet faat mu ne nag mag du xam na xam di ca tàbbi mag du xam yi na xam di ca tàbbi mu wóor lii ay nax la mu nag bi nga tàbbi ca nekk sa bopp ngay tax kon bis bii di bis bu mag bu rëy ñu koy defe foo xam ne kiñ koy def ci moom ak ki tax ñu di ko def ña ko suñ borom boole loon bu ñu amoon lañ bëgg ca moom bis bi du am lañ ca moom ñun ñëpp xam nañu waaye la ko tax a am lam bëgg nag moom sëriñ bi mooy li ñuy wax rek yitte himma bi loolu nag duñ ci guddal ndax waxtu wi mayewu ko waaye suñ basiwu léegi la ma déy ne ma li ngay wax li ci ëpp na jëm ci lu baax lii ñu am ak ku baax kii ñu am lu baax lii ñu am mooy xasida yi Sëriñ Tuubaa yii ku baax kii ñu am mooy Sëriñ Tuubaa Mbàkke mu baax nii nga xam ne kenn amu ko ñun rekk ko am lu tax ñun ñëpp ñu maasa ci ne Sëriñ Tuubaa amul morom te ñun ñëpp xam nañ te amul morom gii ñuy wax fii sama waajur wax na ma ne ma si ngeen sutu nee na ko Sëñ Tuubaa amul morom ji ñuy waxtaane fii dañ koy waxe fii waaye fële ku tax a jóg fële ko tax a jóg bu yàggee fayee la ñu xam ne amul morom ndax kañ mooy borom ñëpp kañ mooy borom ñëpp mu yàlla subhaanahu wa mooy njëkk a jël Sëñ Tuubaa ci boppam moom di puukare ci bind gi ko bind kon kooku amul morom foofu moo koy njëkk a baax bi allahu kiraama al xurra wa bi baqaa'i nabiyyi sarra kon moom muy njëkk wax ne sama waa ji amul morom xaside yi itam mooy li ñu am xaside yooyu ñàkk moroomu xaside yi ak la ñuy def moom fii taxu ko ndax bi si yëm su jaxate di laaj Sëñ Tuubaa kuusu ko tasxiin biha sa bu saalatin daf ko xamal ne ko kaas yooyee de ay kaas lañ ko tuddee waaye du ay du ay kaas ndax wali xutta faydan ak jëlal bahra la wax kon duy kaas mu ne ba mu àggee ba ca kaas yooyee ba ca déeg boobee moom nee na am na tawfiix yi àgg fa loolu tax ñuy dugg ni ko ñu dugg ci waaye ba mu fa àggee ba ko suñ borom ba ko suñ yonent sallallahu alayhi wasallam ne ba nga tollee ci kaas ay kaas laa la doon jox ba nga tollee ci ci pot ci pot la ay pot laa jox ba nga tollee ci ay siwo ay siwo laa doon jox ba nga tollee ci ay bërigo ay bërigo laa doon jox ba nga tollee ci ma jàpp ci sa loxo yëpp la te fa ma ko doon tànqe nag fii laa mën a yem ak yow boo ko mënee naan mi ngi nii Sëñ Tuubaa sama borom may ma tawfiixi mu am yitte yi naan ko ba mu jeex tàkk la muy bari bari bari bari te laa def tawasul ci sama borom mu may ma man naan ko ba mel ne déegub déegub noor dafa ngar ba fett la lool dafa ngar ba fett nee bi ma naanee ba sikki nag nee na daa am ko wax ne ko sa borom nee ñoo ñii nekk foofu yi muy mbott yi nekk foofu yi misaal la duñu mbott waaye ab déeg ay mbott ko baaxoo wër mu ne ko mbott yi nekk foofu yi nag te déeg bi tax leen a jóg nañ ñëw ci yow ba sàkku sa ngërëm ba am ko doo ko mën a naan ci géej gi mbaa duñ ci naan ndax naan nga ko ba noppi moom moo wax boromam ne ko kon ñoom de xamuñu ne naan naa ko mën nañ fee toog jàpp ne daa war a ñëwaat te du ñëwaat sama borom simple na raakole def ko ci man te su ma leen waxut ne mi ngi ci man mbaa mbaa duñ fi yàgg te duñ tax ñu naan mu ne ko loolu sa mbaaxu boppa boo leen ko leeralee yaa xam ak ñoom moo tax mu ne simaamul war a asri yi gaa yi ne ci gindi ni koy waxal mu ne la dallaahi fii yadi wa maa rumtuhu min malikin xaala bil ani sëñ Isaa Jeen di ko firi nee na si simaamul war a asri ni ñu koy firee mooy koo yaakaar ak kum yaakaar ak ka ko yaakaar ak lam ko yaakaare bu ñëwul ci Sëñ Tuubaa Mbàkke baax mi du sotti kon Sëñ Tuubaa loolu yitte yitte moo ko may man ko am kon lu tax ñu ñëpp ñu d'accord ne Sëñ Tuubaa amul morom Sëñ Tuubaa lim def lim yàlla kenn defalu ko lim defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn defalu ko ba noppi it ñuy d'accord ci ne Sëñ bis bu set mbiram day gën a jëm kaw wëlbati ko waat d'accord ñun ñëpp ni Sëñ Tuubaa mi ngi fi ba léegi ñu bare bari boo leen laajee lu tax nga ne Sëñ Tuubaa ngi fi ba léegi bu leen bu ñu la waxee lañ séq ak Sëñ Tuubaa ak bu leen Sëñ Tuubaa féete da nga ci dégg ne Sëñ Tuubaa ci ñoom ba léegi kon Sëñ Tuubaa ngi fi ba léegi lu tax Sëñ Tuubaa nekk fi ba léegi ñàkk moroom man li man di ko gën a man ba noppi ñun ñii ñun ñii bis bu set am luy des suñ diggante suñ tubaa tañ ne suñ tubaa lañ yaakaar lu tax ñu ne suñ tubaa tayam gi ne mooy dàq démbam tayam gi ne mooy dàq démbam ñu ne amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am tabis bu set ñuy jàmbat loolu lu ko waral ñàkk yitte kon li ma ci joxati ci waxtu wu gàtt rek mën naa doon lu gàtt gàtt gàtt gàtt ndax jëmmi himme ci boppam léegi la ma ko sëñ bi dey te yaakaar naa ne li ci ñëw ci suñu xel ci nii képp bu ñu ko doon toj fii mën na fee bañ a xaj waaye bu ñu leen ci junjee dara du ñàkk ngeen xam ci lu ngeen benn benn benn baat bu ngeen mën a yóbbaale ñu joyal ko ci mag ñi àndoon ak Sëriñ Tuubaa saxaaba yi ku ne xam na ko xare Badar ku war a tase junniy nit xel na nga wut yow nga yor ñaari fas ñoom ñi ñoom ñi yor ay fas yu bari yor ay giléem yu bari yori ngànnaay waajal xare ba ba noppi yow waajaloo ko woon nga xam ne xare taxu waloon a jóg ba noppi ñu la demal xare ji nga yor ñetti téeméeri nit yu teg tuuti lu leen yonent bi sallallahu alayhi wax keroog ginnaaw di ngeen a jaayante jaayante boobu ngeen jaayante woon tey li ñu koy xam waaye ñoom ñëpp bi mu ne jugub Abu Sufyaan bee day saa borom xamal na ma ne ñaari ñaari ndam yi dinaa ci am benn benn ma ma def Abu Sufyaan yi yëkkati la mu yoroon nangu ko way laa ma taseeg noonu yi gañe leen ñenn ña nga xam ne seen yitte aggul ci ñu ànd xare ba ñoom seen yitte yëpp ba ni ñaa diggante bi sax dañoo ànd ak moom ñàkk pexe waaye seen yitte yëpp mi ngi nekk ci bagage yi Abu Sufyaan ñuy def ba mën cee jot jàpp ñu ne xare war naa mën a waaye saxaaba yi bari dañoo jóg ne ko ñu ne dañu la wax na Moussa la gaa yi Moussa waxoon Moussa asab anta wa rabbuka faxaatilaa ñoom dañ ko ne inna foo jéggee sab jéego boo jéggee ñu nga bu soobee yàlla duñ daw duñ dëng duñ daay te ñaari fas lañ ñoom keroog ahlu badar ñaari fas ñoo fa nekkoon la gën a ay gileem la woon ñenn ñi dañ doon dox te xare ba la muy métti métti amul kenn kuñ ci mas a jam jees yi ginnaaw hmm. ñan ca rey ñëpp ci seen dënn lañ lañ leen ko jam naan seen seen bàyyi ci diine ñooy saxaaba yi loolu lan na ci jubloon a wax mooy yitte jure réy jooje nga xam ne moom la saxaaba yi amoon ñu ñu am ko suñu diggante ak Sëñ Tuubaa koy wuti ant kenn talam jëloon wuti lépp ba mu ko jotee jëri jërewu ko dara suñ jëmm yi rek a taxoon mu di ko wut kon li ñu sàkku ci suñ Tuubaa ba tey ba tey mu des te buñ lay yitte nag waxuñu bu julli jotee nga dem julli ji bu wooru jotee nga woor bu nawet bi jotee nga ji ci jàkka ja yooyu taxut ñu naan yitte yitte ji nekk ci war a xol xol bu set wicc bu laab tahaaratul xal bi bu set wicc ne lépp loo xam ne lu lu baax la maanaam lëse yi nekk ci leeri xolam mi ngi koy ñodd di ko dugal ci biir xolam muy mëdd xol ba di dugg ci biir yaram mi mm-hmm. ba ko ko gis xam ne kii nitug yàlla biir moo nekk nii loolu la suñ tubaab di wax yitte bés bu set nga julli téeméeri rakka taxut am yitte jàngi naa foofu si par bés taxut am yitte yitte mooy raxas sa xol ba mu set wecci ba xeeti balaa yi xeeti balaa yi nga xam ne mooy mooy yi nga xam ne mooy dugg ci biir doomu aadama bi mën koo yàqal ak humanité am yàqal ko lislaamam muy xeeti kiñaan soxor gaaw a gis sa bopp jàpp ne ak nga te jógoo ko fi nga taxaw xeet yooyu déggtal yooyu yëpp nga dindi ko ba mu denc sa xol wecc ba sa wecc ba nga xam ne kay ak ndab la di séddale bu dikkee sawar laa duyal sa ndab loolu mooy yitte te suñ tubaab xasida yi ne woon na bés dana ñëw sama xasida yi dana mel ne dana mel ne surnaali tubaab yii dana bare noonu waaye jariñu ci dana jafe fokk ñu del si waat jëlaat suñ bopp suñ digganteeg suñ tubaab xool suñ digganteeg suñ tubaab ba xam suñ tubaabam diggante yitteem buñ ko dee roy ci yitteem digganteem ak yàlla lam ca wax lu leer nañ la lam yabqa bayniya wa bayna rabbi nee na sama diggante ak sama borom dara desu la ma ko waroon def lépp def naa ko ñu ne ko sa diggante ak yonente bi sallallahu mu ne lam yàq bayniya wa bayna al muntaqa diggante mag borom yonente bi sallallahu alayhi wasallam dara desu mboolem lu yàlla digle suñ tubaa def na ko na ko yàlla bëggi mboolem lu yàlla tere suñ tubaa mus si jëm-jëm ci loola lam anhu maa lam yufiidi kon sëñ bu amee ñoo xam ne amuñu dara ci jamono ji ñun ñu am la gën ci la ñu am ñu téye ko am te ñoo xam ne xam nañ ne ñun ñoo yor ci li am ñun xam nañ loolu waaye amuñu waaye foog mën a ñëw ànd koo ak ñun xam ne lañ yoroon baaxut ñëw ànd ak ñun li ñu yor ñu jiim koo nag di ñu ko waye falal bëgg ñu waye ko ba mel na ñun yoruñu dara muy suñu Tuubaa Mbàkke mu baax mi ak set nga gis ci facebook yi ak whatsapp yi ñu lay waaye falal sa taalibe di la weddiloo topp nit te ka lay weddiloo moom ma nga am lu lay digal te yëgoo kon ña toogoon ba Sëñ ne képp koo xam ne baatu himma boobu ba mu koy ba mu koy ba mu koy jëfandikoo dana képp koo xam ne jàng kese kese kese kese loolu wax kenn ko wax jàng kese kese moo la fi indi woon mën ngaa dem képp koo xam ne li ma bëgg nga bëgg fa ma jëm nga jëm bismillah li xam xamal li yitte jooju mënutoon a ñàkk mooy ña ña ña waxoon ña waxoon ne jàng ñu fii nii ñi ma ci mën a limal ñett bëriwul mooy ña demoon ñi nga xam ne dañoo dañu dañu sëñ bi ñu jàng ñu fii nii woon dem ñi ngi ma ci mën a limal seenu tur bëriwul wala boog nga wax ma dëkk buñ toj amul te ña ña waxoon suñ tubaab ne ko ñoo bokk fuñ jëm

te bañ bañ koy jox seen lépp amuñu ak bëgg amuñu ak bëgg doomu bi maanaam murit bi jébbalu ci Sëñ li fekk digganteem ak Sëñ Tuubaa mi ngi am ak bëgg ci moom maanaam ab matière bu muy am di am loo xam ne day wan sëñ bi bëgg naa la waaye lii nag li ma lay foog foog ak li ngay baax baax li ma lay topp topp lii moom sama yëf yi bopp la kooku ak ak ak himmaam des na mooy yitteem des na yu yu yàggut yi nga xam ne bu yàggut la muy ko mel ne Cheikh Mouhamadou Moustapha yitte jën defoon ginnaaw sëriñ bi ak la ko sëriñ bi digaloon ak ginnaaw bi nga xamee ne sëriñ bi làqu na ba mu nekk fi ak ni mu tegee yoon wi ci yoon bu amutoon yitte ak dogu loolu du mën a am ba ci suñ ci mu baax mi sax fi mu àgg ci boromam yitte rek moo ko ko may ndax garab ca yonent bi ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Daaru Xudoos ba muy jaayanteeg moom yonent bi ñeewante na ko ba ne ko bul ma laal sa lii bul sax ci jëm ndax lii mbir la moo xam ne boo ko laalee jërut laal daan ko jëlal lii nga xam ne mënoo ko jeexal adduna ak alaaxira te dem waaye yitteem junne yi moo tax mu ne ko loo yaakaar ci ñàkk a laal gi mbat da nga yaakaar dama ko attanu kooku yitte la mbat da nga yaakaar dama ko attanu mu ne ko lii xajut ci ruu mu ne ko kon waxal ak borom ruu gi waxal borom ruu gi bu téyee ruu gi sama jom attan na ko foo bëgg ma yóbbu ko danaa ko fa yóbbu yóbbu waxal mu ne ko yi ci gën tuuti day mooy doo waxi caaxaan doo fekk fi ñu koy waxe doo wokkutu doo gestu foo toll da ngay tagg da ngay kañ sama borom di ma tagg te tagg bi ak kañ doo ko doo ko wutal heure te sama borom da lay booleeg ay noon yoo xam ne dañuy bëgg a dox sa diggante tagg yu waa kañ wi te buñ doxee lu toll ne tarafatal xëy ni sa diggante tagg wi ak kañ wi mu génne la ci kuréel bi dara mu ne ko wax ak moom ci ruug yooyu yëpp waxuma ko kooku yitte la te booba booba sëriñ bi mag bi mhm. booba sëriñ bi booy boo ko séenee muy dox nii dox gi muy dox ngay xam ne nii tey dox waaye bu fekkente ne xamul nii tey dox da ngay jàpp ne mbuus gi naaw la ngir tuuti waay fanweeri ñett la doon la doon pees moo tax suñu mbir Moussa ne keroog ci néeg bi di yow di wàcc fas yi mbàkke bari bi sëriñ bi yéeg neen na bu dul woon ak dox gi muy dox nii di dox ñoo xam ne mooma dañuy jàpp ne ak muusu ginnaaw la ngir tëtiwaay nee na mu yëkkati benn tànk bi ne tegg ci ko daal ne bismillah den yëg ne daal ko mbàkke na na ki lay jël si na yëg suñ kaw jaal dog a yóbbu bàyyi ci kawam nga des am ko yokk fa bopp jur ci suuf lu ko sëriñ bi wax daa sëgg suñu xëy nee dafa sëgg nii ci pasu mel ne bu doon bu doon bu ci suuf la nekk bu doon kuy jullee day mel ni day sëgg di julli nee dana sëgg dana sëgg nii mbooloo mi bari lool te booba jamono lëndëm xanaa daa waroon ne tàllal leen ñu ta ta ñaan leen ma doog a def fee ma dafa leen ma ñaan waaye si mburu Moustapha ñoom li li ak man nekkoon li li li rëcc seenu dëng mooy dañu jàppoon ne sëñ bi moom mooy sàkku ñaan waaye dana leen tàllal lu ma ñaanal leen te moom mooy kenn di dem loolu yitte jure yi ko weesu tàllal leen ma ñaanal leen daan ne te Mbacke Bari la waxee li ma lay wax Mbacke Bari la ko wax ni ma dikk gi leere dem gi leere bu ma nii kooku ma dikk gi leere dem gi leere wane na ko ci asiru ma abraar asiru ku ne xam na ne ndar la ko defee te lu bari ci lu xew ci géej ga ci asiru la ko wax te boobu demagul bam naan xaroorul waraa xaral nasaara bi kay di nii booba ñu ko moom lañu te bi mu dikkee ba njëriñ la ñuy doog a xam ne wasanoo sunoo wasanoo noonu ko loolu yitte na biir ñëw ci suñu mbër Moustapha moom raay bi la ñuy tudd ak jumaa ji loolu mooy li ci mën a tudd ay raay bi ak bi ñu defaroon ak jumaa ji yooyu soo soo soo déggee wax suñu mbër Moustapha lu ci ci yooyu la ñuy wax waaye am na leneen loo xam ne yitte ju rëy moo tax suñu mbër Moustapha koo def dem ko bëgg a defee ndax ku ne xam na ne suñ Tuubaa ñu ko ànd ñaandoon ak moom duñ ay gore kon la waral ñoom ñëpp ñu takk aw say topp ci ginnaaw si yitte la yitte ji a suufe waat mooy yi gën a yi gën a yi gën a jege ci ñun dañ mën koo waxaat mooy yitte Cheikh Abdoulaye Lahat yitte si yëpp ci Sëñ yitte si yëpp laat ci nit ñi yitte ci murit ci Sëñ Tuubaa yi mooy yitte si yëpp laat ci digganteem ak nitu nguur fit ak jom aku fit ak ak ak aku dogu moom la moom la jëfandikoo ñu indi Cheikh Mahamadou Fadal nga xool moom it jitteem diggante nag ndigalul si jumaa li mu ko joxoon ci jumaa ji ñoom ñëpp bari na lu lu bari lu ñuy jëfandikoo ñu jàpp ne positif la fekk yitte juree mu leen ko may waaye am na loo am na ci ñoo xam ku mel ne Sëñ Saliou nii ñu bari Sëñ Saliou daanaka li mu daan jëfandikoo baatin bariwul waaye yitte ju rëy yitte ju rëy ko moo ko moo ko tax am a laaj ak kilifa moo ma ko nettali ne daa laaj sëñ Saliou ba yàgg mu laaj yitte la bokk kon fokk ñu del jii jiima xoolaat suñu diggante ak suñ tubaa yitte ji nga xam ne moom lañu suñ tubaa jox ñun ndax yoon jox nañ ko suñ tubaa mooy ji ñu suñ tubaa jox ndax jox nañ ko suñ tubaa te kenn ku nekk bañ a bañ a wattandiku bañ a bokk ci naan ñi ñi ñaan murit yi léegi murit yi tey suñ bu fekkee suñ tubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am la mënoon tey ko gën a mën a am a mën a am tey la ko gën a jekk dama yaakaar ne yaakaar naa muritu démb ak muritu tey wërta am différence nous sommes différence kon kii maam suñ tubaab yi bu xool ci ab oto wala ñu xool ko ci matière ñàkk mu romb suñ tubaab yi gis oto étage bu rëy ñu ne tey ci xol boo xam ne xol ba day laab set ba foo dem gën ña fa nekk dañuy dellu suñu Tuubaa loolu mooy yitte jëriñ foo dem gën ña fa nekk sëñ la daan wax ne foofu waay nekk nekk ak ñoo xam ne duñu ay moyt ñu ñu gis la sa melakaan ñu xeeb la ngeen sa melakaan yow moom ne koo mën a doon la suñu Tuubaa wax nga nee na boo melee ne suñu Tuubaa bëgg nee na ku la gis dalay sopp rek mbaa mu bëgg la waaye waaye waaye waaye dala fañ mukk kon fokk ñu ñu indiwaat njàngale suñu Tuubaa moom sëñ Tuubaa li mu wax ne dana ko def dana ko def ku ñemee responsabilité la mosuma gis ci àdduna ku ñemee sëñ Tuubaa ku ñemee ne sëñ Tuubaa responsabilité nga wopp léegi faatu léegi mu yóbbu la àjjana léegi ba wan la firnde yi wane ngi nii boo waxee loolu ñu ne murid yi moo ah kay ñun ñoom ñuy dugalaate sawar ndax ñoo moom sawar ba fay dugal kenn te suñ tubaab moo wax ne asaluka aljannata bil muxtaari li may yelawu si biir sas ci taay nga xam ne bu ñu dugg àjjana sax ñoom dugg àjjana ga bu fekkee dañoo defoon ay bàkkaar yoo xam ne bàkkaar yi dafa nekk dañ leen di solal sas ci taay dañ leen di solal ay ay ay yére yu rafet yu set wicc yoo xam ne day mel ne àjjana ji ñoom ñoo ko créé seen bopp àjjana jooju lañu Sëñ Tuubaa mu wutal kon daje di ko jàng bis bu set guddeeg bëccëg ngoon war nañ ci dolliwaat yitte joxaat ko gëdd te koo fowe moo xam ki koy durus la moo xam ki koy jën ci te këram la moo xam ki koy yëkkati la moo xam ki ko bëgg la kenn ku nekk am na yitte joo ko war a jox ndax xam ngeen ne kat mag ñi jës bu bañ di ko di ko def ab tos ci tool yi mooy jës bu biñ jàng fi te dañ daan ay tool yoo xam ne dañ naan tool yi kat loo fi bay loo am nangoo tut ñu ne yan tool ñu ne tool yi bàyyi diw de la ñu ne ah ñu ne waaw ñu ne fu nawet bi toll ñu wax ñu ne bisimilah dañu bàyyi bañ rooj ba noppi ba ba def li ñuy def lokkat ba lokkat ba noppi dañuy dikk digg tool ñu jàpp ba set fukki nit ak ñaar ñu daa jug jës yëkkati ko ba jës jeex digg njoloon ñàq wii siita ci ñoom di toq ci tool yi tool bu luñ fa bàyyee mooy gën a nangu lu mën a doon te jës boobu moo fi ba léegi bis bu sëñ danga ko téeméeri nga toq suñu aajo faju suñu yitte moo ko matul Jalibatul Maraaxib bii Serigne Saliou Fall moo nekk li ne Serigne Touba nee na ab néew bu faatoo ñu koy yóbbu ci ay barab am ku nekk ca biir néew ba di ca gunge ba nga xam ne moom du néew bi waaye daa bokk ci ñuy gunge moom xamul jaalibatu mosu koo jàng xamu ko waaye bëtam bii dege na ci ab néeg boo xam ne jaalibatu nga ca néeg ba sëñ Tuubaa nee na ko jéggal nañ néew ba jéggal ñi ànd moom tamam bu ne jëlañ ci biir ba am na gis koo xam ne daa gis jale bu ci biirum nekk loolu kon jar na loolu nii bii ñu doon jàng tey bisimilah nii maa ngi daane soxna aw Buso waaye jur soxna Amadu Faalam sëñ Fallu ne ikfini bii mooy sa caabi àjjana caabi nag boo bañee mu ci lii ba fu ma la séenee naa ko seen ci sa loxo mbaa ma ci sa walaam yi soxna aw bés ba bi mi dox mi ngi tar ikfini te ay kot a ngi ci biir nag ay kot am na ci xasida yëpp day am lu lu nekk ci njëlbeen loo xam ne moom la ca suñ di tënk bu ko ci tënkee bu moom la ci jumaa ji tënk bu ko ci tënkee nag la ko tax a wax ca mujj gi la fi ne bi mu ne waxata lii min ka sulan faaxa masalati ba boromam lay wax waxata lii ka masalati da ko yow suñu borom jaaxal nga ma mu ne ko lu ma la jaaxle mu ne ko daan ñoo xam ne dañ laa ñaan nga leen waa baax dégg naa ko ba tey waxoo leen dara am na ñoo xam ne bi ñu la ñaanee da nga leen a yëkkati tuut as tuut jox leen waaye mayoo leen am na ñoo xam ne da na may lépp ba noppi boole ca loo xam ne mën na koo mën na koo xajamal am na ñoo xam ne bay ñaane am na ñoo xam ne da ngay na may tubay te mayoo leen mu ne ko man nag bi ma la ñaanee waxuma la nga may may li ma la ñaan waxuma la nga ma koy may waaye da nga maa may ba mayaale man loo xam ne man bokkutoon sax ci ma doon ñaan baax a masalati suñ borom ne ko gees na ko am nga liggéey nag kon mu ne ko luy sama liggéey mu ne ko sant moo tax mu ne ko falaaka sukri ak yaa wahaab nga xam daal utiliser baatu sukkur bi ak wahaabu bi te moo yooyee sant moo tax falaaka sukri ak yaa wahaabu léegi nag li li ko suñ ba li ko suñ borom may ca mujj ko wax waaye yitte gi ci boromam yitte ju rëy gi am ci boromam moo tax ak xencu gi muy xencu borom ak bu muy neex gi muy neex borom ak neex gi koy neex ak la koy moo tax bëgg na jékki-jékki rek tudd ko boromam may jàll suñu borom da ko ne waxal li ngay wax ku dem waaye ma nga fa nekk rek antal xasiisu lazi antal raqibu lazi antal musilu lazi antal matinu lazi woowa lazi di ko di ko wax di ko wax ba ak ci sax naan ko xalamtanil xayba xalamtanil xayba xatta surtout lan ko njëkk wax mooy da ko njëkk wax ne ko fataxtali yi kulla baabin kunta faatihu booba booba ci misaal bu doon bu doon ay nit li ñu ni misaal nii takk na daal yi ba mu dëgër mu fas yéene waaxu nag nga xam ne xaaral nañ ko yoon ba mu war a ba mu war a wax bu wax ne bu ne fa taxta lii kulla baabin kunta faatihahu li awliyaa'ika yaa fattahu yàllaw doo ko waxu nag dem xalam tamit xay ba xataa sirta muntabihan bi mu demee nag ba agsi ci nag mujj gi nag ci la ko suñu borom ne ko li ma la doon may du xam nga ko mu ne ko waaw mu ne ko dama ngeen yow mu ne ko waaw mu ne ko tudd ko te dem loolu mooy lan yaa malikal mulki lii wa saxta duuna jawal fil mulki wal malakuti dëxëra yàlla loolu képp taxoon xasida bi jóg waaye da ko waxoon ne ko yow saa sooy wax ak man ni ngay wax ak man day neex neexit woo xam ne lu dul ko neex ci man moo tax may bëgg ngay wax bagage yëpp say sa sa bagage yëpp sa tam ko ci nekk fi ne nii boo demee boo demee ëllëg boo demee fële ca kees suñu borom ya kër suñu borom boo fa demee saag yaag walis yaag yëpp tampon boo yëkkati loo loo yëkkati rek ahmadu ahmadu xadim waaye da ko ne may naa la ko waaye niñ koy ñaanee ci boppam moo neex ci man moo tax may bëgg nga naan ma may ma waaye saa soo naa ma may ma fekk nee naa la jëlal bu yàgg waaye ni nga naan ma may maa ma neex maddali al xusna wa maddali sayat man li yaqul ha nee naa la jëlal bu ndox moo tax mu naan lépp lu may ñaan ba maa dem ba koy waaj a ñaan naan nañ ma defal nangam far ko def naan nañ ma miiré ji gees far ñu gis ñu ba raax ba raax ko pentu ko wa alihi wa man jaxal yaa man jaxal ñu naa mu ne xat yi ka xajmatil xiyaari ne gees ne fan jaxal wa alihi wa sahbihi yaa man anaar fuaada kulli mustaqimin ne gees fastanaar fastanaar maanaam lu mel ni inkasif inqatix in nangam loolu ñu jàng luqatul arabiya xam nañ ne loolu li ci suñ tubaab di utilisé kenn ku dul moom fekk ko ci xëy na waxtu wi jot na ba tax sax li ñu waroon a gën a xuus dëgg dëgg dëgg bett nañu bettin woo xam ne mëneesu koo tënk ci fukki minute ak juróom wala ñaa fukki minute waaye li wut doon wax ji rek wees weesuwul ginnaaw suñ tubaab ñun rek ko am te keneen amu ko ku dul ñun nañu fexe ba na suñ tubaab bëgg ñu mel ni ñu jiim nee mel bi ma ci indi mooy xaside yi ñu yëkkati di ko jàng dafa am ko yor benn mawaahibu naafi ci njariñ yor ko ci ginnaaw sàkkat bi di ko jàng waaye jàng ko woon di ko yëkkati ko doon durus loolu yéen yëkkatikat yi yéen a ko moom yéen yéen yéen kii yéen ñi nga xam ne yéen ay kuréel bi di jàng xasida gi daal daal ci waccaxlaha ma tataqana biha xóorul xiin wal wil daal di jënat daal taxaw loolu loolu rëy ji mun mu taxaw mel ne koy nattable loolu fekk sëñ baa ngi toog ci sàkkat yi ne ana koy jàng loolu mbaa doog koy ko déedéet mbàkke sëñ bi daal yaa ngi yaa ngi nekk foofu wëri leen ñëw fi agsi li ñu agsi mu ne waxante li nga waxoon mu naan ne wajalaha mi matataxanaa bi xorxin wala wàll bi jënati mu ne bu leen ko nattale a yi la demee daan na ko daaj yi ngeen koy daaj foofee la jóge daan ne dafa daan ne daan sama mag ñi ni ngeen koy man man man sama gone ëllëg yi ñu leen koy dàq gën leen ko jekk daan ne ba ca sama murit bu koy mujj jàng buy faat da koy indaale bu dikkee ko jàng foofee kon du ay caaxaan te bu leen ko ci dugal xasida yoo xam ne am na xasida goo xam ne suñu tubaa nee na boo léegi yoma xayaam akbar malaayka yi ñoo kiral jàng ko ba noppi loolu suñu tubaa ko bind ana haasihi xasida sax yaqra'u malaaykatul muqarrabuuna bi hadrati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muy kaana saalika fi kitaab bi mastura baax yi nga xam ne xam nga nit mën naa àgg ci yàlla ba sës ci rek aréyaat ba sori am na gaa yu baax yoo xam ne àggoon nañ ci yàlla ba sës am nañ jëflante ak yàlla ba soriwaat ko ñooñu bañ dikkaate yàlla di ko yolaat yor seen wax yàlla doy leen li liñ fi doon mayee lépp ak di ak di ko saraxee ka mayee ka ab leeka ka jaay lépp ëpp jën ño nee na biñu dikkee ci man fekk ma njariñ boobu maa ngi ñëw fekk ma njariñ su ma bëggee li tax ma bëgg suñu jàng sama xasida ngeen di déglu bi ñu egsee fekk bi ñu egsee suñ suñ ya dagg lañ ko ko jox leen mooy leen man mënu leen maa jege ndax kat sama borom gi may xeeñ tax na dara mënatuma xeeñ lu dul lool te bu ngeen ma jegee da may xeeñ leneen lu dul lool ñu ne ko waaye ñun suñu cër mënut a ñàkk te ci yow rek suñu borom nee nañu ko mu leen fi gisaat dem leen ci amul suñ tubaa ne leen ginnaaw ama jot a taxaloog yéen di leen defal bu ñu fu ngeen dégg ñu daaj sama xasida yi ñëw leen toog bu ngeen di déglu sama xasida yi jeexee ci diglu googu mooy fabaat seen buum yooyu takkalewaat ko ca xaw xaw fa mu jógee woon mm. moo tax suñ tubaa ne wax ne bëgg naa su may jàng su jàng sama xasida yi ngeen ndax am na ñoo xam ne amuñu cër te yàlla bu doon ñaanee yàlla may leen lay tey ngeen mën a am lay tax ñu jàng xasida nag ñooñu ñoo leen koy xam ndax buñ bëggee diglu da ngeen tànqal leen ñu ñaan yàlla mu sax kon xasida du ay caaxaan Cheikh Ibrahima Fall Ikfini da ko daan jël Cheikh Ibrahima Fall daa jël xasida Ikfini daa jël xasida Ikfini ubbi ko di ubbi ko di ko jàng neen daa ubbi tàmbali tuuti rek daane xeexee moom de bu ubbee rek mënu yëreet daal daal xubaat xasida bi nga xam ne jàng wax nañu leen daan jàng xasida bu yegg bëriwul nee na mu mu ne boo ubbee rek mu ne yuréet daal di ubbaat Pastef boobu la ñu war a dellu si waat mooy ñetti ñetti ndomba yi may wax parce que su Cheikh Ibrahima Fall njàmbaaru Cheikh Ibrahima Fall yërmaane si seen ñu jël ko takku seen liggéey yi pour buñ fukk mu ubbee sëñ Saliou yitte rek ko may imam am na ku ma nettali ne ma ci daara ji la nekkoon nee na ma daa am bés ak tabaski ñu ñëw ci kër gi donga yi kenn nekk bu xamoon ndookaa la ko ma njàpp nag nee na sëñ bi daal di laaj ku ngeen bàyyi ca daara ku ngeen fa bàyyi waaye ci yitte ju rëy nga xam ne ab donga ab donga bu ndaw lañ fa bàyyi ko tudd Ibra Fall waaye sëñ bi bi ñu ko nee Ibra Fall lañ fa bàyyi rek da daal yëkkil jooy ndax baatub Cheikh Ibra Fall lañ fa bàyyi rek mu barkeele ko ca Cheikh Ibra Fall suñu tubaab mu fii loolu yitte jooyu mënu ko weesu kon nañu góorgóorluwaat gën a jàppaat gën a fonkaat xasida suñu tubaab yi gën koo teg fañ ko war a teg mu yóbbu ñu buñ ko defee liñ bëgg dinañ ko am saa yi am ko baatin waaye dajaloo fii kenn ku nekk si yi ba ngay jóg bu fekkente ne yittey suñ tuwaay yi yëkkati wala woon boo fi ñëwee doo fi def yittey suñ tuwaay mm. sa yittey bopp rek nga fi nekk ba jeex kon nañu góorgóorlu ci bëggug suñ tuwaay yi bu ko neexoon yóbbu xasida yi dara dara lañ ci man bu ko neexoon kenn ku nekk mu am lu la gàll ci xasida boo boo koy jàng comme ni ñu gàll ci sumu lay ensemble ku ne xam ne ne am na lu ñu ko war a gàll bu doon koo weru su mu lay ensemble bala nga koo jël am na lu ñu fay gàll xasida moom gàllu la dara bu dikkee bu dul noonu mu ci àll ba noppi gàlloo la wéyal ba gàlloo la kon nañ jàpp dara jàpp ci waa kër suñu tubaab yi te bañ leen a boole dara jàpp ci mooy mooy mooy mooy dénkaane yi sarixatul mutahara wa xaqiqatul munawara sax ci dàkk damañ ko wane dara subahaat yi ñuy wan yëpp dara du ci dëgg subahaat yi ñuy wan yëpp dara du ci dëgg bari na ñu bari ñoo xam ne fi ma waxee yow parce que bañ amoon ci kuñ bokk ku bokk ci suñ tubaa xaw naa wàññi te wallaay ku nga xam ne ñu lay tuddal bëri na sëriñ tudd suñ tubaa da nga xam ne tuddoon suñ tubaa moo gën cee kalaas bàyyi ko noonu rek mu mu nekk nekk suñ nii nga bàyyi ko nii bu ci jëm daa bu doon fekk naan kii la kaaraat teel saa na fi dara dara bi lenn dañu dul jeex jëriñul bàyyi waaye bu naan fee la ko yàlla féetale fee la nekk ko nag su munta ñàkk ba munta ñàkk doone la ko lim la lim kulóore boppam ne wa soo ci bëggee noppal waaye boo jëmee dugg ay ay pax ay pax di dugg ci biir mbiram di la jël ci may kan dem ba réer ci biir loolu te doo xam foo foo ko fii ta jur sopp wóolu yaakaar doyloo mooy lépp suñu tubaab nañ ko def te bàyyi suñu complexe yi ñu nekk te jàpp suñu tubaab mu baax mi nañ jàpp suñu tubaab mi jàpp waa gërëm yi jàpp xasida yi dinaan ca kafem gii di waxtaani jëmmam ji buñ ko defee liñ bëgg dinañ ko am saa yi nag bàyyi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh